torop torop te mbir bu yombee torop torop torop torop torop torop soo bàyyiwul xel nga ñàkk ko de yomb na lool ne yomb na lool nga jot ci nga jot ci góorgóorlu loo góorgóorlu wuloo am nga ko am nga ko dafay ñëw taxaw ci wetam dafay ñëw taxaw ci wetam ñàkk nga ko ndax boo amee dara. ndax boo amee dara. te bàyyiwuloo ci xel. te bàyyiwuloo ci xel. dama ko wax sama doom. ne da koy wax doomam. da ko wax soxnaam. da ko wax mbokk yëpp. mu jox la jàmm. mu jox la jàmm. sa yoon nekku ci. xamuloo lan la. xamoo jàmm ji la. fekke.